voilà kooku les amis tey nag eh, andil nañ leen lu bees tàq tegal leen ko fii ci taabul bi yaakaar naa li ma leen di bëgg a wan su ma leen ko wanee dina leen neex loolu te dingeen si kontaan di lu jigéen ñëpp nag tàmmu si seen biir kër yaa xam marié nga yaa xam célibataire nga ak ku mu manti doon rek bëgg nga lu neex dèjà boo xoolee rek sama ci sama ginnaaw xol ma tamit ci sama ci sama nday jor waye nga xol ci sama càmmoñ li may li may li may jàkkaarlool nii ak ak li ma wër war nga xamné ne li may bëgg wax suma ci exégul sax dafa neex tay fan lañu nekk dañu doxantu ba ci cap Liberté 6 ñu ngi doxantu ba ci cap Liberté 6 seet ci ki nga xamante ni mom moy Daba sop Daba sop buñ ko waxé bo ñëw ba ci ci cap Liberté 6 numéro villa bi 64 99 nga ñëw doxantu fii seet si Daba Sob boo duggee yaakaar naa ni sa kër dina neex lool macha allah bu fekkee marié nga rawatina niveau yi nag niveau marié yi yéen laay woo ngeen daw seet si ma ñew leen fi ci sikap Liberté 6 ngeen setti Daba Sob bo leen duggé doto leen ko doli man bi duggé ba légui wax deug fa yalla bëggatuma genn bëggatuma genn fi man kuma laal lalal mat ma ma ma waye sama cameraman bu ñaawul bii di aro na mom neena na jënd na mom neena na jënd na jënd jënd na fi euh, mat ñu tegal ko fi dotul demati mati. bo xamante ni bëgg nga bégal sa jëkkër rek euh, bëgg nga bégal sa alaaji bëgg sa kër neex na ci tabaski bi dawal nga ñëw fi Sicap Liberté 6 seet si Daba Sob so duggé di fi fekk ay parfum de classe yu am Nenalin naa leen jigéen dafay jonge da fay pare da ngay pare ci lepp nga nek sa bir ne comme yi wara dem ci lal bi yoy yep daba sop am na ko boo ñëwee dinañ la ko wan am na parfum yo xamantene ni tamit sa yaram moko taxa jog nena jóg fi ba la ngay xam ne daraa ngi fi nga ñew ba dugg fi ñaaka xam daba worut bok na ci ñaaka bégal sa jëkër man ma leen wax li ñaaka xam daba sop ba ñew fi moy bokk na ci ñaaka bégal sa jëkër bo bëggé xet yu neex rek ak tangay bi di ñew lepp lo xamni soxla nga ko luy bégal euh, sa ta nga bëgg ko dawal nga ñëw seet si Daba soo lépp am na fi dinaa leen si tuddal yenn yoo xamante ne nii rek dañ leen koy wan ndax lu ci mel ni safir bi boo ñëwee ba laal ko yaa xam bu la ci neex nag safir bi waaye man dama leen ciy wax ne 22 bi benn moom waaye tamit benn du 23 bi 29 bi noonu boo ko laalee foo romb dinañ la wax te li si gën a neex nag ay xeetu parfum mooy soo ko laalee foo jaar dinañ la laaj la ndax doo ko bokkalee kenn boo duggoon ci mbooloo lu mu xumb xumb xumb la nga fay xeeñ yow doo yaa koy xeeñ soo bëggee koo bokkale kenn yebal ko mu daw ñëw seet daba ndaba soog mu xool fii li fi nekk nee naa la nekkul fenn jéeg bu bëgg a bégal sa jëkkër dawal nga ñëw seet si daba soog ñàkk fee ñëw daal wóorul ñàkk a ñëw ci daba erreur la xoolal ma plateau yu nice yi nga xamante ne ni moom la teg daba tamit nee na pareegu ma ñu ne ko daba boo pareegul looy def mu ne dama ñëw pour dimbali jigéen ñi dama ñëw pour jàppale jigéen ñi ndax xam naa ni jigéen ñi seen loxo ngi ci kër yi seen loxo ngi ci lépp nag waaye pour noppal leen nan laay def dama leen defal tonting tonting mooy lan nat natt boo xamante ne da ngay ñëw joxe sa 500 francs euh, chaque jour cinq cent francs 10 jours yi mille francs cinq jours yi mille nga ñëw euh, teggi sa benn plateau teg sa biir kër teg sa biir kër nga xool loo bëgg yaay xool bi nga bëgg ñu ñu teggil la ko daba dafa ñëw pour jàppale jigéen ñi ci lépp ñi nga xamante ne ni amuñu ay moyens pour ñëw jëndandoo lépp ñëpp lépp teew te nag daraam cher wax dëgg fa yàlla noonu lay yombe ba pare mu nekk ku baax tamit nekk euh, jigéen gu gu jàmbaare am jom nangoo liggéey namul daray góor waaye xaarul daray góor tamit am jom bëgg lu baax laabir yaatu oyof yaatuwaayam bala nga koo xam nga ñëw ba toog fi mu teg fi tamit ku ñuy wax bébé fa bébé fa boo ñëwee fekk ko fi dina la dalal wan la lan mooy parfum yi naka nga ko war a jëlee yow mi nga xam ne da ngay gis xamoo sax parfum ni nga ko war jëlee ñëwal boo fi fekkul daba di nga fi fekk bébé fa dina la wax naka nga koy jëlee yéen heure nga koy jëlee ak naka lañ koy defee dina la ak yiri yaatal la dalal la wax naa leen ni daal ñëw fii si daba Dabassouk mooy defar nga sa sëy defar nga sa dund defar sa dund jëkkër ñëwal nga seet si ko foo romb jeeg ji bàyyi la xel gëm naa ni milieu boo dugg sa moroomu jeeg dinañ la bàyyi xel ñàkk a ñëw ci daba wóorul daw leen ngeen ñëw seet si ko soo leen ko bëggee jot tamit seet ay numéro téléphone mën ngeen a wootee si cent 77 328 74 16 bu dee ci bitim réew ngeen jot ko ci 0034 642 52 05 65 loolu su ngeen si wootee di ngeen leen jot si seen ay ay ay numéro la heure bu ngeen leen woowee di ngeen leen jot fu waay mën a nekk soo mënta déplacé wu ñëw livreur yi ñu ngi fi foo mën di nekk defal sa commande dinañ la ko livré ba nga jot ci waaye wax naa leen ne ñàkk ñëw ci daba Dabasoog dara gënu ko wóor di daw leen ngeen ñëw seet si ko man lii laa leen wax daw leen ngeen ñëw seet si ko leen jox dig daje ba beneen yoon